match boo xamante ne bii euh, egsi na euh, li nga xamante loolu lañ ci yaakaaroon demewu ni ndaxte match yi tegloo ci semaine bi yëpp du ñun rek ñu nag Géejawaay ñeneen la euh, yàlla def na nag tey jii ñu am jël jël boo xam ne xalaatuñ ko woon ndaxte nit yi mérité wuñu bal boo xamante ne bii vraiment dañ ko doon dégager dégagement yi baaxul donc mu nekk but bi mu nekk jël boo xamante ne bii Euh, du du duma du ma wax ne adversaire bi mérité wu ko mérité na ko mais également ñun tamit euh, séntu wuñ ko woon léegi li ci des mooy jéem a saytu li nga xam ne moo ñu téye ba tax ñu am ay ndam temps yi jéem ko defaraat pour mën a avancer. ñi ñëw fii tey daf tombé ñu nag euh, Thiès FC ñoo tolloon ay poñ il fallait ñu ñëw ñu ne soit ñu am ñetti poñ yooyu wala ñu am point match bi ñibbi mais daal li ñu doon bañ rek ñibbi seeg zéro point yàlla def na xale yi.

donc euh, lolu kese moo ci am solo te vraiment ci lolu te fi ak bu parce que